les contradictions yi noté souvent dans le discours de Ousmane Sonko xam nga ku ne Khalifa Sall il parle pas souvent il parle pas beaucoup Idrissa Seck il parle pas souvent il parle pas beaucoup mais Ousmane Sonko il a son mot à dire ci lépp loolu day tax ba souvent li muy wax dafay xaw a woroo ak yenn yi bu ci mujj mooy euh, l' affaire de la corniche scandale lañu wax ne force de l'ordre du service de Macky Sall mais démb xam nga ci démb moo xal ne dañ koo génnee pour sauver la vie donc je veux dire voilà kilifa Parce que Ousmane Sonko, ce n'est pas Khalifa Sall, c'est pas. Khalifa Sall est issu du PS. Le mhm. PS a été son levier. Idrissa Seck est issu du, du PDS. Le PDS a été son levier. Euh, Détiéfal de Réumi. Le Réumi a été son levier. Mais Sonko est parti de rien. Il s'est créé. Il s'est créé à, à ce temps, à son époque. Moi, la formule de Bakili quand il dit que chaque génération se bat et les âmes sont mhm. euh, Sonko a décidé d'être en phase avec son époque. À un moment, que, la presse ou que les médias en général ne restituaient pas le bon discours parce que Munga Wataï nous changeait Mais il a fait le choix de mener son combat à travers les réseaux sociaux. Il y a aussi une masse de militants qui ont construit une force de riposte unique sur les réseaux sociaux et qui fait que, avec les armes de son époque, il s'est construit un leadership de son époque. le discipline en disant que je parle que quand je pense qu'il faut parler. Ousmane Sonko est un homme politique qui pense qu'avec les réseaux sociaux, on est dans la situation de l'instantané. Il faut parler à ses militants, il faut être en permanence avec eux parce que le flux de l'information est tendu et je communique en France. Ousmane Sonko mën na génn keroog ñu gis ñëpp mais en tant que il reçu des informations qui ont fait que on que que que, que j'ai été abandonné wala quoi soit comprennent que ce qui s'est passé ça ça a peut ma vie parce que au-delà de tout ça li ma wax ñëpp mooy man yàlla laa dénk sama bopp yàlla moom mooy sàmm bopp léegi te dina ko ne di ma sàmm continuer àndu baat Khalifa Sall mooy sa mais boo wax ci Ousmane Sonko on a l'impression que am na relation bu am seen diggante am na lenn lu ma lay wax mooy euh, ci nemmeeku tur bi dama gis waa Pastef def benn euh, bind ne ñu ngi remercier Aba Mbaye ci contribution am ci nemmeeku tur bi je respecte Ousmane parce que daf ma yay déjà à la base am nga Ousmane Sonko muy door a commencé benn man damay faral di dem armat lii bu génn dama koy jënd di gëstu suñu homme politique lu ñuy wax mm-hmm. man dangeen moom armat naa man ko man grand goo ma ne woon ci nga franchir kabu élection législative yi muy njëkk présenté 2017 mu ne Abba je suis convaincu que dina dina dina jàll ma ne ko avec ce discours là généralement au début les Sénégalais lay topp mais après ça se dafay xaaw a tas mm-hmm. mu ne moom mais ce qu'il a quand même réussi à continuer au Sénégal est euh, jàmbaar nag boo gisee da nga ko koy nangu du du caage ne mais capacité bu am li mu dégg at yi ñu weesu ba jamono yi ñi ko ko teg bu ko tegoon duñu ko dégg te déggu na ko kon ne di politique kon a respecté la man nag par par jàppal naa parce que man nag aussi il faut ko duñ may tànn candidat comme dara yombul woon ñu bëri nanguwuñu ko woon et je pense que jàppale nañ ma Pathé jàppale ma ba ma falu tey bu amee modèle bu mel na nemmeeku tuur mais la nemmeeku tuur ñun on attend su rêvé suñu parti yi xam nga yaa ngi wax waxu pourquoi du ngeen mais pure seen mobilisation bi gis nga même polo sax il le vendait à 7000 francs te gars ko jënd casquette 2000 francs dañ ko jënd te 1500 1600 gars en un week mais il finance l'activité tey Khalifa Sall woo wax fa mu wootee mu xool lu fa dee moo ko parce que c'est comme ça que notre parti a été conçu yaa ngi fàttaliku jamono yi mbay jàkk mu naan ku jur ma <laughs> mais mais c'est comme ça parce que da ngay jaay carte responsable ñoo ci teg seen armoire mais non militants ont été on ce logiciel là mm-hmm. et on n'a pas réussi à le moderniser s'il y a des qui ont réussi à construire un modèle pour différent bi gars yi dafay demee ko tur à Saint-Louis man j'ai contribué spontanément parce que lu ma def Saint-Louis Pastef jàpp na ci. une dernière question.